Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné ci suñu YouTube ngir jot saa nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci réew. Sénéinfo. xam nga loolu boo koy wax fii dafay niru leneen mais ku ne xam na ne man ku ma xuri ma gajj la. mais li nga wax noonu bu ñu jotee gisantee ci yeneen jotaay danañ ci mun a yaatal mais jàppal ne rek li nga jàppe yow xëccoo man bi ma ñëwee fii jàmm la doon ci man parce que dama ko sàkku ci moom mu ñaanal ñu ñu am dal dal googu la ñun ñëpp di wut kon ñaanal ñu ñu am dal élection yi ñu jëm na doon élection yu dal élection yu leer élection yu ubbeeku parce que bàyyil xel bu baax li ma la wax élection yi ñu jëm c'est des élections toutes particulières c'est la première fois que société bi nit ki sénégalais bi ñu ne ko yow yaay fal ki lay jiite ci sa gox loolu responsabilité la et bu boobaa nag ñi nga xam ne ñoo ëppal njariñ gox bi ñoom ñoo ci ëpp chance kon du élection coalition du élection parti du élection mouvement élection ay nit la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax maa ngi lay sant bu ñu gis sa déplacement fii ci diwaanu Kaolack lan lañ ci mën alors déplacement wu Kaolack bi dañu ñëw juste pour ziar si euh, suñu papa ziar si euh, kër gi ziar si euh, faydu bi ñu xam njariñ li ñu am ci réew mi xam taxawu bi ñuy taxawu Sénégal kon bu ñuy waajal lii di gàmm nga xam ne ñun jullit yi dañu ko dañu ci accorder une attention toute particulière jaadu na ñu ñëw fi sàkku ci sëriñ bi ay ñaan waaye ku ne xam na ne bu gàmmu jotee fu ne la nit di jóge ci Afrique sow jant Afrique de l'Ouest ba Nigéria ñëw di gàmmu si fii kon day wane benn lien levier boo xam ne dafa am solo ci intégration africaine kon jaadu na kilifa yi sax di ci bàyyi xel pour utiliser levier boobu pour gën a raffermir diggante yi ci pays limitrophes yi mais ñi nekk ci wàllu sede CEDEAO bi ñu ñëwee sakku nañu ci xalif bi mu ñaanal réew mi ñu am dal ñaanal sakku nañu ci moom mu ñaanal réew mi mu am yokkute sàkk nañu ci moom mu ñaanal réew mi ci xëccoo élection yi ñu jëm mu doon élection yu leer yu dal yoo xam ne kenn du ci gis lenn lu ñuy xeebe senegal e loolu moom ci waxtaan wi interpellé na ci acteurs yi bi ñu duggee maak moom waxtaan nañu ci moom nag ñu ngi dellu di ko di sàkku ci suñu borom mu yokk kattanam mu yàgg fi lool te ànd ak weer jërëjëf. Euh, xam nga coow coow coow loolu duma bëgg sax ñu ci épanché wu ça fait dix-huit ans que Bougane Gueye am ay société ci Sénégal bu ñu demee ba deux mille vingt et ñu bëgg coller Bougane Gueye ne c'est un mauvais payeur ça veut dire que notre administration est défaillante c'est exactement sax kon ñoom kon ci wax. man si bi ñu indi mooy communiqué bi ñu génnee ñoom waa mm. deful communiqué. dafa ne daf ma invité débat. ma ne ko dafa juum parce que des médias dafa am administration moi je suis le président du conseil d'administration moo am ay administrateurs ñooñu ñoo koy tontu bu tontu wa jotee xam nga il faut ñu éviter di jaawale Bougane mi moom des médias ak Bougane mi nga xam ne dafay xëccoog ñoom ci wàllu politique leneen li ci des nag moom ministre de l'économie et des finances wax naa ko ne moom le ministre de l'économie et des finances wax naa ko ne ki may xëccool ci débat wala ki may jàkkaarloog ci débat mooy Macky Sall pour ñu wax li te réew mi avancé parce que am nañ ci lu bari loo xam ne mën nañ ko cee wax quand même jërëjëf